téléspectateurs internetu sans limite TV asalaamualeykum ñu ngi leen di nuyu depuis la belle ville de Saint-Louis Saint-Louis muy la première capitale de l'AOF du Sénégal tey jii leen nag ñu daal di fi ñëw ci euh, li nga xam ne mooy deuxième édition wu setal sunu réew initié par son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye mais laata ñuy dem ci loolu rek ma jox le soin à ki nga xam ne la àndal muy Ngoné Saliou Diop mu daal di présenté wu devant nos internautes. d'accord Fary euh, c'est un plaisir ma bokkaat ak yow plateau depuis nu ñu ko defee euh, ci suba ak léegi euh, ci deuxième journée bi nga xam ne mooy set setal suñu réew le premier ministre de la République Ousmane Sonko nekk fii ci saint comme ni nga ko waxee gis nañu ci suba ak léegi activités yi nga xam ne jot nañu ko amal xam naa ci kanam tuuti rek nañu ci dellu siwaat mais du nuyu suñu internautes yi nga xam ne ñu ngi seetaan depuis fii ci saint du Sénégal mais Ngoné tey da nga da nga da nga xanaa c'est l'effet Saint-Louis ah. damaa ñëw sama dëkk. <laughs> voilà donc yéen a ko gisandoo Saint-Louis moom ku fi ñëw faaw nga daal di sañse yéegalaat niveau bi maintenant je pense que wax nañu ko tout à l'heure tey li ñu fi indi du dara lu dul deuxième édition seetal sunu réew tey nag ki fi ñëw di le premier ministre Ousmane Sonko qui a été très bien accueilli en tout cas par ñi nga xamante ni ñooy euh, les habitants de Saint-Louis fii nga xamante ni mooy Saint-Louis ki ko yónnee nag di son exemple Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi nga xam euh, ni tey journée bi c'était mouvementé parce que le premier de li nga xam ne mooy activité citoyenne bi mu invité les sénégalais dem na xooli ay projet yoo xamante ni ay projet yu ñu dooroon la mais amaana defuñu ko wala bokk lañ ci doon xaar gisuñu ko si est-ce que mën nga ñu ñëwal tuuti ci projet yu ni mel. voilà comme ni nga ko waxee Fary yaakaar naa ne euh, mi ngi fi moom depuis demba waaye bu mu xëyee ci euh, journée bi fu mu ko tàmbalee mooy foofee ca Guet Ndar ca Langue de Barbarie euh, nga xam ne avancée de la mer bi itam sonal na leen bu baax baax mu nekk ci ponk yi nga xam ne dañu koy jooy waaye tam lu jëm ci foofee nga xam ne fa la gaz bi nekk am yoo xam dañu ko waxante woon ci accord yi te ñu gis ne loola itam mënutawaat dellu si ci askan bi bokk na ci yi nga xam ne le premier ministre Ousmane Sonko yëkkati na ko te mu nag soxal bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkee fii Guet ndax ndax yaa ngi koy dégg sànq ñu koy ñu koy wax déjà li ci gën a am solo mooy ba ngay sax jaale eh, ñi nga xam ne nag eh, jot nañoo ñàkk seen bakken fan yi ci eh, Barça wala Barça boobu nga xam ne ñu ngi ko doon dégg ñu bari génn woon nañ seen xel naam boobaak léegi gone yi ñi ngi dem ci gaal yi mu jébbal leen njaal boobu boobule dem itam fi nga xam ne moom mooy ni ñu la ko waxee ci langue de Barbarie nga xam ne yëkkati na fa ay kaddu yu am solo ci fàttali rek ne ba muy ñëw nag fii ci deuxième journée national bu set setal suñu réew muy ab initiative boo xam ne le président de la République du Sénégal euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye euh, moo ko initié woon bi nekk deuxième édition bi euh, ci yenn si quartier yi ñi ko gunge mën nañ ci lim docteur Cheikh Dieng di directeur général bu ONAS nga xam ne sànq am na ay kàddu yu mu yëkkati jagleel ko askanu Sénégal waaye itam Cheikh Tidiane Dieye ak ñeneen ci ay autorités administratives yoo xam ne ku ci mel ni le préfet le gouverneur ak ñeneen ñoo xam ne ñoom itam ñëw nañu bokk ci bile ñu gis ndem Sonaged ak euh, fonds d'entretien routier autonome muy FERA ay élèves gendarme ñi nga xam ne moom mooy euh, armée ñëw gis nga leen sànq ci euh, euh, taxawaay bu am solo bi nga xam ne euh, taxaw nañu ko foofee ci nettoyage bi mais dafa am lu am solo te yaakaar naa bés bi itam dañu wax ne wàllum set setal la waaye tamit fii mu fekk si xam nañ ne fii le maire Mansour Faye ci kàddu yi nga xam ne jotoon na ko yëkkati dafa waxoon ne na teeru dérouler le tapis rouge au premier ministre mais finalement gisuñu ko ombram sax kenn mujjewu ko gis boobaak léegi ñu ngi woote nag pour xam lan moo xew wax nañ ne daal dafa am empêchement dernière waaye am na ay service am yoo xam ne yabal na leen ngir ñu mën a ñëw teewee bi nga xam ne euh, moom mooy mbir mi ci jamono jii Ousmane Sonko xam nañ ne moom mooy le premier ministre waaye dafa am ñaari casquette euh, muy casquettu euh, njiital Pastef muy parti boobee nga xam ni fépp foo dem am nañu fa ay militants mi ngi leen di recevoir mi ngi waxtaan ak ñoom waaye mën nañoo jàpp ne dafa am réponse boo xam ne daal dina koy def ndax lu jëm ci travaux d'assainissement bu Pikine Euh, ci cadre modernisation des dix villes euh, entamé na depuis boobaak léegi juróomi at euh, te mbir mi boobu ba tey àggagul donc premier ministre na ñu jàpp ne tamit ab réplique salée la daal di joxe rek ki nga xam ne moom mooy l' ancien ministre maire actuel maire bu Saint-Louis ndax mi ngi rappelé ne état dafa defoon benn mise en place programme d' assainissement boo xam ne dañu ko war a amal ci fukki ville yi ci Dakar Saint-Louis Pikine Euh, fi nga xam ne moom mooy euh, Louga maatam euh, Matam Kaolack jàll itam fa nga xam ne moom mooy Tambacounda bu ñuy ma nag koppar gu ñu ci def toll na ci 60 milliards de francs CFA donc mu nekkoon koppar goo xam ne lu jëm ci wàllu assainissement moo tax ñu génne woon ko ci gafak état waaye tam ñu waroon prévoir benn réseau d'assainissement boo xam ne dafay am foofee ca Tivaouane ak ca Touba ci maatam ak ci Tambacounda ngir augmenter Euh, ouvrage euh, ville bu saint ak bu mais également ñu construire itam li nga xam ne mooy ay infrastructure autonome euh, multiplier capacité de traitement des eaux usées ci 14 000 mètres cubes ak waaye itam régler le problème des inondations dans les villes de Kaolack ak Touba ndax wàllum yaa ngi koy wax sànq ci sa reportage maa ngi koy déglu ne am na ci dëkk yoo xam ne bu commencé xiin wala bu bisee rek dañuy am problème inondation ndox loolee fi jóge itam ab laaj fi ñëwee ak léegi yàggul ah, ndax liggéey yu ñu entamé woon nga xam ne gouvernement bu njëkk bi moo ko fi defoon ndax loolu mën naa tax mbënd ah, bañ a am donc tey bu fekkee ne eh, lu premier ministre dafa laajte ngir loolee nga xam ne koppar la war ñu def ko ci ah, bu laajtee ñu leeral ko loolu itam foog naa ne war nañ ko leeral en terme de di programme lu toll ci 4000 personnes ñoo waroon am accès aux ouvrages euh, d'assainissement 300 euh, 000 ñoo waroon euh, bénéficier branchement sociaux mooy ay égo yu nu mel depuis lancement bi nga xam ne itam ñu ngi fàttali ko defoon nañu ko ci Louga en mars 2017 par le président ki fi nekkoon président de la République di Macky Sall liggéey ba dañu ko arrêté ñuy fàttali itam. loolee mbokk na ci Ousmane Sonko daal di wax ne nag nañu ko daal di euh, euh, leeral ndax itam am na yeneen koppar gu takku boo xam may na leen une semaine euh, ngir waa ONAS yooyu itam andi ci ay leeral ñuy fàttali ne maa nga la koy fàttali ne njiitu ONAS bu bees di docteur Cheikh Dieng moom itam mu ngi fi xam naa ci bés yi itam du ñàkk moom mi nga xam ne moom moo jëlee ren mu daal di ñëw def le bilan def état des lieux ndax itam dañu dañu koy xaar te ci jamono joojee ñu wax gisoon nañu le président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar waxtaane ci yenn si ministère yi ak yenn yi ci direction yi yabal fa IGE ngir ñu xool kër yooyee Euh, taxawaay gi nga xam ne amoon nañu ko lañu fa dugal ci ay koppar yu takku bu ci nekk ñu daal di xam euh, euh, lan ak lan moo ko moo fa la dem waaye tam di fàttali ne ci rapport yi nga xam ne jot naa génn tam état bu Sénégal ñu ngi ci bàyyi xel mais également ñii di askanu Sénégal itam ñu ngi ciy bàyyi xel ba bëgg xam rapport yooyu fan lay mujjee. absolument et je pense que le premier ministre sax sànq daal dina koy wax ci kàddoom parce que bi ñu taxee fële ca UGB am na ay kàddu yu mu yëkkati à l'endroit des étudiants nee na leen bi ñu xamante ni mooy euh, xool reddition des comptes def li xamante ni mooy synthèse ci liñ fi fekk mais jamono ji mën nañ wax sénégalais ne l'état du Sénégal jël na toutes les dispositions nécessaires xam na lépp li nga xamante ni war na ko xam li topp nag mooy lan maintenant ci euh, phase d'action bi te ci loolu nee na dinañu euh, def liggéey bi nga xamante ni mooy li ñu war a def en tout cas pour leeral yenn dossiers yi nga xamante ni dégg nañu les saint en tout cas la plupart d'entre eux ngi naan 60 milliards yooyu nañ ko leeral parce que nag fa la dem ca Pikine 700 gis nañ fa tey ji nii situation boo xamante ni c'est désagréable parce que ay kër yoo xamante ni dañu jàkkaarloog ay ay canal ciel ouvert muy indi xet boo xamante ni wax dëgg neex yàlla loolu dafa nekk lu jafe si dundin am na sax koo xamante ni bi ñu waxtaanee ak moom nee na am na jamono yoo xamante ni tey jii nii seen këram munoo fa lekkee da ngay obligé génn dem fu sore sori pour mën a lekk parce que boo lekkee si biir kër yi da nga koy woccuwaat tellement odeur bi du neex mais aussi li muy àndal muy ay yow ay weñ donc loolu mu nekk loo xamante ni c'est invivable te dañu ne un esprit sain dans le corps sain ñu jógewaat foofu demaat fële nga xamante ni mooy UGB ñu xam ne nag université la boo xamante ni ba muy tijji six cent étudiants ñoo fa nekkoon mais actuellement c'est à plus de vingt mille étudiants donc certainement li nga xamante ni mooy eaux usées dafay multiplier wu mais depuis bi ñu ko construire ba léegi tey amuñu évolution ci infrastructure yi et ça dafay répercuter wu ci li nga xamante ni mooy euh, mode de vie wu yi ñu am projet boo xamante ni depuis deux mille vingt et un mu nga fa mais le DG euh, Dieng wax na ko sànq nee en en comme en deux euh, euh, bi daal di taxaw nag loolu itamit ñu ngi xaar ay jéego yoo xamante ñoom nee nañ dès la semaine prochaine dinañu fexe daal wëye daal liggéey bi donc liñ ciy retenir rek mooy le discours fort du premier ministre Ousmane Sonko mu ni lépp loo xamante tey action bu ñu war a mëne la nanu ko mëne bu ñu xaar dara parce que fi ñu toll nii l'hivernage aéroport te yaakaar naa ne bu fekkee dañu ko bëgg a indiquer dañu war fexe tey jii ni jël les devant li ñu mën a def nag mënuñu tey euh, on est à trois on trois mois bi ñu toogeeg léegi donc mënuñu indi ay solution miracle comme ça éradiquer carrément lii di inondation mais li ñu mën en concert avec ñi nga xamante ni ñoo les citoyens sénégalais mooy ñu àndandoo fexe xool naka la def ba li nga xamante ni mooy mbënd bi ñu daal di koy atténuer ba effet yi nga xamante ni daan na ko am fii ci Sénégal du ko am te gis nañu euh, travaux de curage yi nga xam ne jot nañ ko def en tout cas taw li commencé na fële nga ne mooy dans le sud mais amagul yenn inondation yoo xamante ni daan nañ ko fay dégg donc mën nañ jàpp ni quand même c'est projet boo xamante ni tey jii nii ça en bon te bu ñu continuer nu ni mel rek sénégalais amaana dinañ ci am li nga xamante ni la ñu la ñu la ñu la ñu gis am solo loo xam ni le premier ministre ci na ko ndax euh, li nga xam ni itam wax na ko euh, discours yi bari na waaye bi mu tenir devant les étudiants de l'université euh, Gaston Berger mën nañ ko jàpp ndax li nga wax ni loolu la ñu wax ne du ñu ñëw rek lépp daal di sotti. waaye dañ ciy ànd ak ñoom ndax du président de la république du premier ministre te du gouvernement waaye ñëpp ñooy mën a àndandoo euh, ngir mbir yi euh, daal di sotti li nga wax noonu ne tamit euh, ci ñu leexal lu ci bari da ngay gis na ci ay kàddoom boo ko dégloo lu baax la wax na ko ndax xam na ne demande sociale la te itam dañoo toll ci jamonoy leeral mais leneen maa ngi la koy wax sànq ci ba may tàmbali samay propos muy wàllum immigration clandestine bi dégg nañ ko wax na ko ak yi mais lim ci wax itam moom mooy daal daf leen wax ne depuis quelques suux mi ngi dégg ne am na ab bato boo xam ne daal dinay suux am ci ay nit yoo xam ne daal dinañu ci euh, ñàkk seen bakken lu tollu ci quatre-vingt-dix migrants yu doon dem foofee ci Europe euh, mu daal dina nag loolee dafa nekk euh, lu xaw a doy waar ci ndaw ñi ndax bii mooy énième naufrage boo xam ne ñu ngi koy wax boobaak léegi mu daal di déclaré itam nee na dafa déplorable waaye tamit dafa nekk loo xam ne daal Euh, ñaalu na ko mi ngi un appel à la jeunesse euh, te mi ngi ko waxee itam ci kanamu jeunesse ndax nee na leen euh, kii doon njiitu réew mën naa jóge ci yéen kii doon premier ministre mën naa jóge ci yéen ki nga xam ne itam dafay jël a décision awale ko fii ci Sénégal mën naa jóge ci yéen loolu moo tax daal mu daal di leen wax ne daal lu jëm ci loolee nañu ci génnee seenub xel ndaxte lu jëm ci euh, Barça wala Barça taxul ni ñuy dem seenub avenir mu ngi fii nga xam ne euh, moom mooy euh, ci Sénégal avenir du monde mu ngi ci Afrique te dañ cee war a conscient ñoom ndaw ñoo ñu le daal di leen wax ne nag lu jëm rek ci mois yi ñu génn def na synthèse ñi nga xam ne ñàkk nañu seen kenn ci géej gi waaye tamit wax ak ñoom ci yenn violence yi nga xam ne dañu koy faral di gis dans les universités mu ne mënatuñoo nangu xel ñoo xam ne dañuy jël ay jaas yooyu di ko jamante seen biir dégg nañ sax étudiants yi nga xam ñoom ñoo nekk université Gaston Berger ne leen déedéet euh, PM loolu amul fii mun leen naam amul fii waaye comme fii laa nekk dama leen koy wax parce que dañu war am euh, un discours de vérité entre man ak yéen su ngeen amee lu ngeen may wax da ngeen ma koy wax euh, ci dëgg waaye man itam su ma amee lu ma leen di wax dama leen koy wax ndax samay rakk ngeen te itam li ñu boole moom moo raw loole loolu moo tax fii laa leen koy waxee mënuñoo nangu lu jëm ci violence wala ci xoqatal ñu gis bi mbir yi amee set euh, setal bi euh, sur toute l'étendue euh, du territoire national le premier le président de la République Bassirou Diomaye fay réagir na sur sa page Facebook ma bàyyi la nga dal ci dellu si waat absolument mais je pense que c'est un président boo xamante ni tey ji nii parce que dañu ne booy jiitee booy booy digle sangaay day fekk nga set te moom depuis le début c'est de cette démarche bi nga xamante ni moom la entreprendre à savoir lépp loo xamante daf ci woo Sénégalais rek daf siy jiitu tey amaana mën nañ comprendre li tax tey teewul parce que tout simplement da doon waajal voyage bi mu war a def fële ca sommet de la CEDEAO ca Abuja mais teewul le soir daal dina posté sur ses comptes officiels muy Twitter muy Facebook di remercier le peuple sénégalais parce que loolu aussi doon na loo xamante ni lu am solo la am solo muy je suis fier d'être sénégalais mais je suis fier tey def nañu ko parce que woote neex na mais nit ñi mënoo leen forcer ñu ñëw mais bu fekkee ne woote na nit ñi déggal ko loolu déjà euh, contentement la ci moom tey tamit nee na il faut maintenir cette cadence là je reprends tout simplement la mu waxoon lors de la première édition fële ca Thiaroye dafa ne bu nu ko def loo xamante ni c'est événementiel maanaam c'est le président qui appelle ñëpp génn après ku nekk tëdduwaat sa kër déedéet mais na doon loo xam bu ñu bëggee mu dox faaw ku nekk jàpp si wax na ko na moom kese mënul doxal Sénégal Diomaye Diakhar Faye kese mënul doxal Sénégal ñoom gouvernement yi kese aussi mënuñu doxal Sénégal mais li mën a doxal Sénégal mooy ñun ñëpp ñi nga xamante ni tey jii nii ñu ngi fi yeewoo ñun ñëpp ñi nga xamante ni tey jii nii am nañ fi baat am nañ fi kaddu ñoo war a booloo lépp lu baax ñu daal di koy fësal lépp lu yees tamit ñu jël ko tegee ko de côté te je pense que message boobu mooy li nga xamante moom la Diomaye lancé te li mu wax ci côté immigration clandestine lii nga xamante ni mooy pétrole ñu am ko lii nga xam ne mooy gaz moo fi nekk ñu am ko te teewul li ñu ciy am amaana lu minime lay doon par rapport ak li ñu ci war a mën a am te nee loolu dafa di loo xam ne ko fi fekk mais nag c'est avec les sénégalais qu'ils vont faire tey renverser la ni tey jii nii peut-être 18 pour cent yooyu ñu si dañu koy daal di négocier waat ba ñu amaat ci pourcentage bi nga xamante ni moom la ñu yel lool te nee nag loolu combat ñëpp lay doon ñoom de leur côté ils feront tout ce qui est nécessaire te loolu wax na yaakaar naa ne bu ko waxee war nañ taxaw ak étudiants yi ne leen carrément je un langage de vérité avec vous bu amee lu ma war a wax wax ma ko wax dëgg yàlla donc mën nañu am yaakaar ne ñoom nañ def seen wàll maintenant nag message bi ñu lancé mooy lan mooy à que la jeunesse soit consciente mais nag conscience bi yemul kese suñu woo la génnal nga dem déedéet mais nañu uti xam-xam parce que la nga wax léegi dama ciy dellu si waat rek parce que tey Afrique toll na jamono moo war a diriger le monde te ça kii di Ousmane Sonko kii foo faudra que les Africains soient ici en Afrique parce que bu fekkee ni ku jug dem jël gaal gi même boo àggee même boo ci tekkiwee wala du wala wala wala du genre tey amaana dëkk boobu ngay servir et Sénégal et pas donc tey bu ñu bëggee Sénégal gi wala boog Afrique bi nekk sur le toit du monde va falloir ko ñun suñu bopp ñu daal di gëm suñu bopp toog suñu dëkk liggéey tekki fi teeral fi suñuy wayjur te loolu noonu mooy message bi nga xamante ni premier ministre lancé na ko te le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye aussi yàgg nañu dégg mu koy lancé donc daal loolu wax dëgg neex yàlla bu nu ko waxee rek xel dafay dal ba tax na message son excellence boobu noonu en tout cas les sénégalais en tout cas la plupart yi nga xamante ni tey jii dégg nañ leen kontaan nañ ci bu baax a a am contentement ngoone euh, dernier point bu ñuy jeexale rek euh, foog naa dañuy desandi ci discours euh, le premier ministre bi nga xam ne tenir na ko fële ca Genda ci langue de Barbarie mu daal di wax rek lu jëm ci accord de pêche yi Euh, ginnaaw itam ba mu waxee rek ne dañu ko war a xoolaat sérieusement ndax jàpp na ne peut-être que ne am na loo xam ne euh, am na ci wala lu ci nekk te waruñu koo def euh, mu wax tam compréhension ak préoccupation bi nga xam ne daal dinay am ci lu jëm ci ressources halieutiques yi mais également ci ñi nga xam ne mooy suñu nappkat yi donc mu ngi leen di rassurer ñoom pêcheurs yi waaye tam di comprendre seen préoccupation ndax accès bi nga xam ne war nañ ko am ci ressources halieutiques yi demeewul noonu waxtaanee ak suñu naataangoo yu Mauritanie ndax xam ne ñu euh, ne sénégalais lañ daan euh, pêché ci waaxu euh, Mauritanie ba léeg-léeg itam mu doon xam am ay jafe ndax dañu leen doon tere ñu dem ci yenn yi am na sax ay yu ci doon am wala ñenn ñoo xam ne dañ leen ci doon teg moom Ousmane Sonko mu souligné également ne am na ay initiative yoo xam ne mi ngi en cours donc ñu ngi koy waxtaanee waaye tamit daal di souligné que ne solution yi dinañu ko def mu gën a structurel mais aussi ay élaboration yoo xam ne bu ñu càmbar càmbaraatee lu jëm ci accord de pêche yi loolee dinañu ci bàyyi xel bu euh, baax a baax luy tamit euh, ñuy euh, permettre yenn étrangers yi di ñëw ci waaxu Sénégal di fi napp loolu itam daal ci ciy yëkkati te tam nañ koy nappee dañ ko def de manière sauvage léeg-léeg ñu jël loo xam ne bu ñu ko bàyyi woon peut-être fii daañu ko jëriñoo waaye tamit mu wax daal Ah, ci économie bi ak wàllum transformation ndax ku wax Guet ndax itam xam ne euh, dëkku nappkat la seen li nga xam ne euh, moom la ñuy euh, dundee wala moom lañuy ñuy suturloo wala moom la ñuy seen njaboot bokk na ci napp gi loolu moo tax peut-être que mu choisir boobule occasion waaye tam lu jëm ci exploitation locale nationale yi la loolee daal dina ci wax ak ñoom kon jàpp nañu ne xel mën naa dal fari bu fekkee de am nañu ku leen jàppale ngir seen mébét yi nga xam ne am nañ ko ci Sénégal daal koy doxal. mais parce que tey li mu wax noonu dafa di loo xamante ni lu ama am solo la parce que ñun sénégalais ñoo war a gëm suñu bopp. parce que tey euh, am na kàddu yuy naan ragal yëpp yàlla la te ku gëmul sa bopp kenn du la gëm donc en tant que sénégalais tey jii nii suñu industrie ñun ñoo ko mën a développé. parce que foofu sax am na lu ma fàtte woon nee na fii bëgg nañu daal di defar li nga xam ne mooy suñu pipeline bopp gaz bi ñu koy liquéfier suñu bopp gaz bi ñu koy produiral suñu bopp di ko jaayal suñu bopp dem ba commencé di exporter donc loolu lim lay lim lay lim lay woon rek mooy que ni euh, objectif bi nga xamante ni ce nouveau gouvernement teg na ko mooy tey au lieu que ñuy jéggiwaani di jëndi ci biti mais non seulement ñun dañuy produiral suñu bopp mais aussi dañuy jaay donc suñu économie dañu koy daal di amaat donc tey li ñu si mën a li ñu si mën a gis rek mooy nañu xool abi wu kii di euh, Ousmane Sonko habillement wu kii nga xam ne si Bassirou Diomaye Diakhar fay ñëpp a koy saluer de par l'Afrique parce que quoi parce ay soxnaam gis nañu ne ah, dañuy promouvoir lu jëm ci consommation locale ci montre yu ñuy takk ci dàll yi euh, sol ci colin bi wala sax saak yi nga xam ne dañu ko yore donc mën nañu wax ne jox na gëdd artisan yu fi nekk te dañuy wone itam ne ñi fi nekk nañu gëm euh, suñu artisan yi mën leen suqali absolument parce que tey jii nii mooy li ma wax léegi rek parce que bu fekkee ni man maa jiite kër gi te amaana yow mi nekk ci kër gi jàppale wu ma la kenn du la mën a jàppale wala boo keneen bu la jàppalee tamit du saf dara parce que tey man mii sa kilifa bu fekkee man nangu naa utiliser say produits nangu naa ko valoriser parce que tey le fait que président di sol benn tenue africaine tenue sénégalaise valeur ajoutée la ci tenue bi nit ki ko doon jaayee trente mille amaana mën na ko jaayee sax cinquante mille parce que quoi parce que président sol na ko donc loolu rek dafay wone tey li nga xamante ni déclaré na ko à savoir tey li nga xamante ni ñun moo nekk suñu dëkk ñun ñoo ko war a ñoo ko war a valoriser à un point boo xamante ni tey jii bu ñu ko tegee sur l'économie du marché dina mën a am rentabilité en retour donc loolu daal mooy li nga xamante ni mën nañ ko jàpp ci discours bi nga xamante ni en tout cas am na solo bu mu def fële na la ca université Gaston Berger en tout cas il a très bien choisi son discours parce qu'il était face à des intellectuels ñoo xamante nekk gis nañu ne bi mu paree dina demaat ci bi nga xamante ni nekkoon na fa foofu la logé woon nekk quand même ay images yu rafet a rafet Sénégal, le Sénégal avait besoin quand même de voir ces images-là. voilà loolu lañ doon xaar euh, ci ñoom te loolu itam la ñuy xaar li nga xam ne wax nañu ko euh, ñu daal di koy euh, jëfe fari di leen fàttali ne ñu ngi woon fii dans le cadre ci li nga xam ne moom mooy set setal national initié par le président de la République du Sénégal tey ni nga ko waxee mi ngi foofee ca CEDEAO ca Abuja ci liggéey boo xam ne entre les chefs d'État la yabal fii son di ngeen sax ba mu waxee kàddu ba yu pare dafa ne kàddu nag maa ngi koy jottalil président de la République du Sénégal mi nga xam ne moom laa fi teewal comme ñu leen ko fàttali rek loolu moo waral euh, équipe bu Sans Limite TV euh, déplacé wu fii ci euh, Saint-Louis du Sénégal ngir ànd ak ñoom ci action yi nga xam ne ñu ngi koy def pour la population ngir ñu daal di koy fésal ndax li fi jot xew tey yaakaar naa ne ñëpp ñu ngi koy rafetlu ñu ngi doon waxtaan itam rek di gën a ñaax li ñu commencé ñu àggale ko waaye itam bu ñu ko àggalee ba dem ñi fi dëkk ñu mun koo rek daal di gën di def ndaxte set setal moom baax na waaye itam foog naa ne mooy li gën ñu setee euh, ci cadre de vie foog naa ñëpp la ñu koy defal ba pare tam ñu koy euh, xamle xale yi lekk sànni ci mbedd bi euh, dox naan sànni de sa ndox tuur naan café Touba tuur wala dox ci mbedd tuuf tufli loole yëpp dañ koy war a wax ñi nga xam ne ñoom ñooy ndaw ñi ñu daal di koy xam ndax set moom ak setal baax na waaye comme ni ma ko waxee bañ a tilimal foog naa ne moom moo gën di leen sant bu baax di leen gërëm ci ànd bi ngeen ànd ak sans limite TV di leen wax nag ngeen wéyandi ak suñu ay programme Farima daal di lay bàyyi nga daal di tàggatoo ak internet yi la seetaan. benn yoon rek je pense que voilà wax nga li ëpp solo ci mbir mi donc di leen jaajëfal rek parce que nos internautes aussi ñoom itam dañoo am wàllu wu rëy ci li nga xamante ne la ñu nekk di def gis nañu à chaque fois ils sont là avec nous ànd avec ñun euh, avec fidélité wax dëgg yàlla donc dañu leen di jaajëfal di leen delloo njukkal à chaque fois te ñoom ñoo waral itam déplacé wu jóge Ndakaaru Ndiaye ñëw fii ba nga xamante ni mooy Saint-Louis daal di ànd ak ki nga xam ne mooy le premier ministre won leen la nga xamante la fi nekkee donc di leen jaajëfal di la jaajëfal yow itamit ci euh, teewaay bi aussi wax dëgg yàlla macha allah yàlla yàlla yàlla xam na li nekk ci xol yi donc di leen jaajëfal bu baax baax di jaajëfal toute l'équipe euh, toute l'équipe technique aussi ndax it it bu baaxee rek ñoom la Thiom Babacar ak Sidaat mi nga xamante ni moo ñuy moo ñuy moo ñuy yóbbu fu ne wax dëgg yàlla di leen jaajëfal bu baax di leen jox dig daje nag ëllëg ak yeneeni programme fii ci Sans Limites TV restez avec nous merci beaucoup